waaw ñu ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di leen daral jàmm ñëw ngeen nag ci dëkk boo xamante ni dëkk cosaan la fii ñu taxaw nag mooy Kalom Kalom nag li ko waral bekkoor a amoon ci réew mi bekkoor bi waaw bi mu mettee nag benn soxna moo gis tuuru dëkk bi toor bi ne ko dag may may meew mu lew mu woon la fu ndox nekk mu ratt fukki tax ak ñaar may ko bët seete nag soxna su dellusi daldi xool benn bën bën mu góor ñi góor ñi nag ñëw tàmbali di ko gas di ko gas nag ba am ñeent fukki mètre juróom ak fukki mètre benn ci waaye gis ndox mi nag bi ñu gisee ndox mi nag gis tóor mi ko wanañ dañ ko feetal feet gi nag ñu indi ay xéewal di feetu ba jant bi sob ñu nangu ni am kan la ca kan mi nag garobe alooma jiitu ñu tudde ko kàmb ga ca aloome muy kaloom loolu ci histoire mooy taarixu teen bi tuur mi jaan la waaw tuur mi tudd jaan la jaan ji benn ci àddina mais nag meeg ay sët ak i doom waaw kon loolu moo waral loolu moo sosal waru kaloom bi daal waaw kaloom jaan ji moo ko feeñu ci benn jigéen jigéen ji nag bi mu ñëwee ci la ko jaan di wane benn bën bën soxna si nag woo góor ñi ci lañ ko gase nag moo waral teen bi. moo kàmb ga ca alome muy kaloom waaw. moom bi fi mag ñi nekkee nag dammeel yi laata ñu lay fal dammeel du Kayoor da ñëw nag fii ci kaloom toog fi une semaine.